Thank you. asalaamaaleykum soxna si. maaleykum salam soxna si noo tudd. man Aida. Aida Aida ma ngi la fekk fii unité 5 ci euh, fan zone bi nga tak sa drapeau sa bop yore say drapeau lan moko ko waral. xanaa bëgg suñu réew. bëgg Sénégal gagné. Uh-huh. ta yalla na yalla and ak ñun. amin amin wa lool nak lañ bëgg. inshallah waaw supporte suñu gox. Uh-huh. di sante nak di gëreum nak wa Cheikh Tidiane Dafaxa ndax li lepp mom la di gëreum tamit Laat Diop lu bare bare bare bare ndax li ñom la kontaan daal lañ def waaw. mais bu loolu weesoo yëpp yow match Sénégal ñaata ñaata score jox ma score bi ñaata nga bëgg Sénégal dóor. wax dëgg yàlla mu nekk 2-0. 2-0 ah baax na incha allah jërëjëf merci. gis nga fii ba léegi ñun ñi ngi ñi ngi ñi ngi euh, ci fan zone bi lañ nekk gis ngeen gars yi ni ñuy supporter équipe bi macha allah waaw match bi moom lii nee na trop parce que Sénégal lii rek la am. donc équipe buy football foog ay population dem ci ginnaawam xaaral ma am ñenn ñu ma ci wax a ku baax maa lay siyaar. Ah, waaw am jàmm. waaw maa sa waay maa ngi la gis yaa ngi de. waaw mais gis nga baay benn zone rouge rek la ñuy topp benn zone rouge bi man Moustapha. Moustapha tey ñu ngi la fekk fii équipe na euh, fële ñu ngi la fekk fii nga xam ne mooy Unité euh, 5 ngeen organiser seen fan zone tey nan nga gisee match bi. waaw mais match man moom xawoon naa sam benn benn doute bu ndaw nii rek ndax tamit la fait que Côte d'Ivoire bu mag la donte sax baaxul ren quoi mais maanaam nit ki ki ngay séewal faa nga sa adversaire faa nga respecté ko quoi waaw mais incha allah moom dañ ciy génn quoi waaw mais gars yi tamit nañ génn fubal Sénégal lañ fubal ah, Sénégal dañoo génn ñu re mais temps fort day jeex. waaw mais temps fort boo xam te ni minutes. loolu boo deful nang c'est que boo xoolee Sénégal dafa dugal rek après daw taxaw ci ay camp ah c'est pas normal. voilà noonu la demee nag c'est pas normal. mais mais mais xëy na incha allah deuxième mi-temps bi gars yi indi lu leer. waaw waaw lu leer. bu soobee yàlla jox ma score. <laughs> dégg nga. ñaata nga de ah. waaw waaw baax na incha bi maa ngi lay cheikh. ñu grand doo mooy casquette def affaire de patriote rek. affaire de patriote ah. waaw li ma affaire de patriote ah. waaw waaw mais kontaan nañ jaajëf jaajëf tey ni leen fekk fi nga xam ne mooy Unité 5. ngeen organiser fi fan zone woote ñëpp génn moom macha allah gis nañ asiko yi ak lépp tey équipe bi naa dem nañ mi-temps. nan nga gisee match bi. bon match bi daal nañ bañ a tegg suñu tànk quoi dama gis ne. ben instant biñ ñu après gars dañ xawa a sen tank surtout Sadio bi mu jaune bi dafa melni dañ ragal a lenen quoi motax ñu xawa a suñ tank mais tamit c'est normal parce que Côte d'Ivoire fi mu ne pression bi mom la atonul quoi il faut ñu songu ñu ñu nit ñu xawa ci quoi mais deuxième mi-temps bi mom nañ teg suñu tank ci bal bi quoi. bañ a teg suñu tànk ci bal bu baax mais mais mais bo xolé nak zone zone bi Sadio Mané jël normalul dé non zone bobu pourtant parce que day wàññi ci mom lu bari nak hein ah. waaw normalul moo tax gars yi xaw a xaw looloo tax ñu xaw a tegge seen tànk je ne sais moo tax mais normalul quoi man pour man sax Sadio bu ñu demoon VAR te mu jël rouge parce que loolu rek laa doon xalaat quoi dama ne woon c'est fini bu doon tubaab yi tam ñu jox ko rouge. la mais mais sant rek alhamdulilah comme rouge amu ci carton jaune rek la ci jël. alhamdulilah man kay rouge laa doon bi moom du am moom wax dëgg yàlla rouge bi du am. mais tey yow d'après ni nga doon déggee match bi football bi Sénégal Côte ak lépp ak li nga seetaan li nga jot a seetaan ci première man d'après sama analyse. coach bi dafa melni ko ragalo football quoi. voilà ñun buñu foole fóolee. lan moo tax nga ni dafa melni ko ragalo football. non dañoo limité dañoo limité même suñu latéraux yi dañ leen limité quoi. ben instant mais bu bu fekkente ne bàyyi nañ leen ñu football Côte d'Ivoire ñun xajuñu ci moom nañ génn football. kon kon kon yow su ma la déggee su ma la déggee dégg mooy dafa mel ni comme si que ni dañoo mën a rek bëgg ñun ñun ne léegi dañuy tëj match bi toog déglu tëj toog déglu Ivoirien yi. voilà dañoo mën a 1 am zone ñu uh-huh. taxaw ragalo fubal bëgg defendre défendre suñu 1-0 yuñ yu ñu jot a dugal quoi. mais nañ teg bal bi ñu fubal ko ñeme ko. mais incha mais incha allah bul jaaxee xëy na deuxième mi-temps affaire yi changé. Ah non deuxième mi moom nañ fubal suñu fubal quoi. incha allah voilà jox ma score. score non 2-0 laa gis. 2-0 nga gis yàlla baax na yàlla nañ ko yàlla defal kon jaajëf grand bi. je m'appelle Ibrahima Ba donc responsable gëm sa bopp fii ci Parcelles Assainies. Euh, ñu organiser benn fan zone. jagale ko koñ bi donc pour jeunesse bi yëpp génn. Euh, lii dafa neex parce que tamit bu ñu génnee teeloo en même temps support équipe nationale.

Euh, defuñu benn risque te et puis gis naa ne tamit am na beneen expérience bu duggaat seen biir parce que ñu ngi bañ a pour jël carton jaune te aussi am na solo pour sóoraale match bi jëm final bi aussi. mais li ma jaaxal si ñi ma jot a jaar ñëpp ñi ci ëpp dañ ni ñoom kontaan nañu ci match bi quoi parce que Sénégal dafa mën a un rek après daw taxaw ci ay camp yow lan yow ba xam loolu nga gis. waaw contrairement ak ñoom li ñu gisee donc man je vois parce que de un bien vrai que Sénégal est à domicile euh, sur euh, sur terrain mais si on qui des lañ la au moins que dafa am une pression bu muy donc bu ko le comme bien vrai que nag bon match bi xaw na différent par rapport ak match bi contre Guinée ak euh, contre Cameroun mais boo xoolee ba tey baax na parce que match yooyu ak match bi daal bokkul parce que éliminatoire lañ nekk phase euh, élimination directe euh, ba pare nga ñëw dajeeg équipe bi nga xam moo nekk pays organisateur te ñëpp gis nañ tey ci difficulté yi mu ñëwee ba qualifié ci huitième de finale yi aussi voilà xam nga ñoom tamit boo xoolee ci karo lañ nekk nii ñoom ba léegi seen karo lañ nekk grace à je pense que victoire de Maroc waaw moo leen dugalaat ci kan bi da leen mayaat beneen soulagement ak beneen confiance léegi nag bu ñëwee ñu jël bi ci nu mu gën a gaawee ñu aussi c'est ñu xaw a taxaw loolu parce que boo xoolee tey mun naa wax ni biñ ne Côte d'Ivoire qualifié na di dajeek Sénégal mun naa ni Sénégal gi ñëpp dañuy tiit mais tiituñu nag ci football ah parce que xam nañ Sénégal moo leen mën ci football mais lim nekk pays organisateur ci jafe-jafe yi mu qualifié saccagé yi gars yi saccagé tey seen dëkk bañ qualifié waatee gis nga leen ñoom ñëpp kontaan jubilé dëkk dem nañ ba xamatuñ sax sénégalais yi parce que mm. ñoom biñ biñ leen dóoree kaat yi ñoom dañ ni euh, léegi Sénégal la si porté yàlla def ñoom ñu qualifié léegi ñoom lijjanti ñu ba amoon na ay sénégalais d'ailleurs sax yu fa xawoon am ay quelques soucis ba seen état bi après moo ci jël ay mesures tey ñu ñëwaat nii ci match bi ki nga xam ne mooy Drogba Didier Drogba moom mu euh, ne leen ñaax leen ne leen képp ku suñ gagné match bi muy muy joueur yi et dirigeants yi ku nekk da ngay am 40 millions te tey gis nañ match bi bon intense ñu ko jappé won yaakaar naa tey gars yi gisaguñ ko peut-être deuxième mi-temps bi aussi. waaw yow wax nga lépp vraiment gis nga loolu noonu moo waral pression bi instant yi seen côté la nekk. c'est vrai parce que boo xoolee génnoon nañ ba pare du dugaat donc bu situation bi demee fii ñun aussi il est normal ñu taxaw loolu rek moo waral li yëpp vraiment. man daal maa ngi ñaax gaynde di waxaat deuxième mi-temps bi nañ ko gérer. comme ni ñu géré woon premier mi-temps bi. incha allah di leen wax ne aussi pour l'instant ñu on est en faveur ñoo mënee 1-0. donc amul lenn lu ñuy perte. Euh, football ndank xam nga bu amé offensif offensive xol a xool ñu koy exploité. incha allah ñu taxawaat taxaway bu dëgër rek. vraiment éviter ay carton jaune surtout nak inshallah ah, surtout loolu moom c'est très important parce que bo xolé Sadio dafa teel a jël carton jaune. parce que loolu tam da koy wàññi dafay wàññeeku ci lu bëree bëri. Ah, gis nga loolu moo waral débordement yi sax xaw a wàññeeku tuuti tuuti parce que bu ko defaat benn risque quoi moyen de geste rek mën jaar 14 zones après mën nañu mën nañu na waaw on est en tout cas on est très fiers kontaan nañ vraiment aussi di remercier baax ci ni ngeen ñëwee couvrir événement bi vraiment kontaan nañ bu baax baax

ci seen fan zone bi moom lañ organiser donc ni leen wane première mi-temps bi asiko yeeg lépp li fi am noonu lañ koy continuer wanaan leen ko deuxième mi bi bu incha bu match bi jeexee ci jàmm Sénégal gagné ci jàmm tamit ñu continuer tamit wanaat leen li nga xam ne moo xewaat ci mbégte gaa yeeg te incha man gëm naa mooy jël ndam li bu soobee yàlla jox ma score. vraiment euh, je vois encore ñu dugalaat beneen bi deuxième mi ah, parce que ñoom ñi nga ñoom la ah, ah. ñu ko sur STK loolu xam naa man xam naa ki dara la donc moo ci nekk merci beaucoup ñu lay jaajëfal waaw maa ngi taxaw ki nga xam ne nag mooy ajaratu Soxna Seck bu Lat Diop soxna ajaratu maa lay nuyu na maa ngi lay fay bu baax waaw tey dañoo ñëw fii unité 5 fekk si leen fii ngeen organiser li nga xam ne mooy fan zone woo waa gox bi yëpp génn te macha allah ñëpp génn nañ gis nañ leen asiko yeeg yëpp tey lan nga may wax ci loolu ak lan moo leen motiver li ñu motiver mooy sunu équipe équipe nationale mu doon équipe boo xam ne tey ñun ñëpp ànd nañ ko bëgg ñu am ndam sunu président Lat Diop na fekk sañu def ko si commune yëpp nag cinq communes yëpp mu def fa fan zone ndax teraanga Lat Diop ku ne xam na ne du lu bees surtout ci biir unité 5 yi ndax man sagal na ma moo ma yóbbu